leneen li mooy problème mu emploi de jeunes eh, defe naa ne problème emploi de jeunes eh, dina euh, am naa yaakaar à quatre vingt quinze pour cent ci cinq ans président Macky dina ko régler pourquoi parce que mm, dina am ñoo xam ne nii dinañ leen yóbbu ci euh, ci agence yi ñii fonction publique ñeneen ñi euh, dinañ leen. régler problème par exemple DER bi dina régler problème yu bëri aussi euh, comme li ko président di waxee mu ngi ñaax jeunes yi nañu nañu nekk nañu ubbi seen entreprise xam nga créer seen salaire bopp mais fekk état moo leen di accompagner financer leen ba pare accompagner leen loolu war a mën a nekk na waaw. gisee opposition jël ko parce que dañoo ñun dañoo diviser wu woon. Euh, ñu demee lu mot ñett lis wala ñeenti liste loolu moom moo tax ñu perte locale yi mais boo xoolee référendum ba léegi eh, ñun ñëpp dañoo ànd suudewu nekk benn di ànd déggoo di di di di waxtaan ci sunu biir di gañe boo xoolee pré euh, référendum bi la ñu ñëw ñu ñu remonté boo gisee remontée bi aussi ci financement yi la jaar yi fi xaaru Harouna Dia dugaloon ñu ñu tasaare ko ci ci Djiddah Thiaroye Kaw tasaare ko ci banlieue bi ci seize communes yi boo xoolee boobu la ñu ñun ñëpp euh, parce que locales yi boo xoolee sur les seize communes ñun six communes rek la ñu dominé woon donc boo xoolee tey nag depuis référendum ba léegi euh, ba ci présidentielle bi euh, référendum législative yi benn ak référendum bi benn commune la ñu pertoon muy euh, Pikine Nord euh, législative yi aussi même chose mais présidentielle bi boo xoolee dañ ñu ngi woon à 31 pour cent ñu yéeg ba 50 euh, par exemple dama lay wax jënd caa rek à 51 pour cent ça veut que ne eh, loolu aussi ñu ngi ciy sant bu baax ñëw Harouna Dia ci biir banlieue bi ci biir jidde caaroy kaw et puis daf ñu jàppale parce que aussi euh, am na loo xam ne nii pour mu mën a dem il faut nga am yenn moyens donc dafa jël moyen teg ko suñuy loxo ñun ñëpp ñu ànd liggéey ñu gañe présidentielle bi yéeg nañu bu baax suñu pourcentage macha allah donc locales yi aussi man parce que mën naa la wax depuis référendum ba léegi ci ñi nga xam ne nii dañoo yore puso di dox dox tànku jàmm di wut nit ñi nañu booloo nañu liggéey à travers de euh, Harouna Dia je crois que local yi aussi dinañ ko def bu soobee yàlla ñu toog waxtaan comme ni ñu defee woon ci présidentiel ak Harouna ñu waxtaan entre ñun ñu gagné ñëwaat toog ñu waxtaan ñu xam ne ne dërëm bi bañ a génn gaal bi. ku nekk rek am nga droit am ambition mooy li waxtaan la rek euh, il faut ñu waxtaan entre ñun. te boo tey ma xoolee ji di caare kaw boo xoolee y' plus de quinze personnes yoo xam ne am nañu ambition moo tax nag li ñu daloon 2014 dinañ ko éviter ñu incha allah ñu toog waxtaan toog ko kilifa yi ñu waxtaan toog ko ba mu ñor ñu dem gañe ñëw ñu toogaat entre ñun ñu xool nan la ñuy nan la ñuy téye mbir mi incha allah. yenn euh, euh, loo waaw ye am na ci commune yoo xam ne nii mais aussi il faut ngeen xool ne ne présidentielle bi. mooy présidentielle bu gën a metti ci histoire Sénégal mooy élection yu gën a metti ci histoire mooy campagne bu gën a metti ci histoire u Sénégal c'était pas facile parce que dafa bëri woon euh, daal ay naxante ci biir parce que di nga gis ku ànd ak yow sol say t-shirt di ànd ak yow mais jour voté du du la votel wala mu ne yow ya nga parrainel ko nga ne kii maa ko parrainé fekk jour élection du la votel xam non mais sanctionner mm, defe naa ne du sanctionner au contraire gis nga sa équipe bu nekkee am na fuy sooxee rek il faut nga dooleel côté boobu boo xoolee Jide Caaro yi kaw tey ah ñu ñun ñooy ñoo nekk premier à cinquante et un pour cent te ñun amuñu ministre amuñu directeur général amuñu dara amuñu benn nomination mais dañoo am chance ci Harouna Moussa Dia ci seize communes yi mu yi mu nekk. Euh, ci seize communes yi ñun bi mu xoolee ne ñun amuñu loolu daf ñu dooleel daf ñu dooleel parce que ñun amuñu woon doole dooleel boobu ñu dooleel moo ñu yëkkati donc ñeneen ñi aussi il faut ñu dooleel leen ci mm, am fànn bu ñu leen doole bu ñu leen doolelee je crois que électorat bi dina mën a yëg. non mais Harouna il est obligé que mu ñëw par la force incha allah day ñëw te nee naa la ni mu ñëwee woon ci présidentielle bi dina ñëwee noonu ci local bi. dinañ toog dinañu waxtaan entre ñun dërëm bi bañ a génn gaal bi moom ala kulli moom dafa xas bu dugg ba pare xam nga ci waxuma la rek ci jidi caaray kaw ci seize commune yëpp dina fa dugg pour ñun incha allah pour ñu mën a ñu mu waxtaan comme ni mu def ci présidentielle bi boo xoolee présidentielle bi seize commune yëpp la waxtaanal amaana bu duggul woon ci banlieue bi amaana score bi gën a xaw a faible mais def ci dugg bu baax waxtaan ak ñëpp ñi mero